te ni ngëm gi ngay wax ni moom nga gëm Isa nu Maryam jëlal sa épée walla nga jël arme bula neex ñu tase ca place de l'indépendance lool la wax sengoor ni ko waaye man nag duma jël lu dul yet parce que tu es dem ba Senghor ci boppam wax ni Serigne Cheikh dana am procès pour war a dem tribunal maître Abdoulaye Wade wax ni nanu ma jox dossier ma volontaire ko pour défendre dossier ba Serigne Cheikh jox Ablaye Wade benen dossier ni ko versé ko ci sama dossier parce que ay secret yu Serigne Cheikh amone la yu concerné Senghor ba Senghor yegge la nek ci dossier ba mu wax ni buñu ko versé ci dossier Serigne Cheikh wax ko ci tribunal préféré na nan poison kon mi ngi ñaan négocier ak Serigne Cheikh dossier baa ngeeg Ablaye Wade mu denc ba léegi mu mel ni Serigne Moustapha nekkul prisonnier c'est un otage parce que booy dugal nit kaso na ko dugali ci yu ñu mën dégg ba sëñ Moustapha lu mu wax bi lu jar ñu ni moo tax ñu téye ko Maître Babacar Sèye dañ ko assassiné loolu la wax mais ki aj moo bañ ku séentu ko parce que lu leer nekku ci avant ñuy éclaircir Maître Babacar Sèye nañu wax la mort de bu Ndiaye tey waxaguñu ci lu ñu mën a dégg waxuñu ko réew mi waxuñu ko ay mbokkam bala ñuy wax nañu wax la mort d'un gendarme empoisonné xam nañu li xew xam li xew moo ñu considérer Serigne Moustapha qu'il n'est pas un prisonnier mais c'est un otage na ko la conscience interuniverselle et universelle considérée comme un otage mu mel ni nag Serigne Cheikh yéeneem ci réew lan moy yéeneem ci réew mi réew un responsable bu jub xëy na bu nu bu nu responsable bu xel yépp ci Umar ibn al-Khattab lay dem le deuxième calife de l'islam Umar ibn al-Khattab moo daan def bu bëggee sieste bu añee ba noppi dafay dem ca garab ya ca gannaaw Medina fa lay tëdd ci suufi garab yi pour def siestam am ku ñëw di ko seet wax ni dama bëgg a gis amirul muminin ñu ni ko ndax rombloo kuy nelaw ci suufi garab yi ci gannaaw dëkk bi mu ni aha kañ ñu ni ko mooma mu ñëw tiim sayiduna umar fi muy nelawe bu daan nelaw bëccëg dafay wàcce kaalaam ci kanamam parce que yonent bee ko recommandé ñu di ko wax alxaylu la mu ñëw tim Seydina Omar xool ni il est le commandeur xool ni baatu l'islam bi yépp mi ngi ci loxoom mu tiim ko di ko xool gisul alkaati bu koy garde gisul chef protocol gisul sécurité bu dul sécurité yàlla mu téem Seyduna Umar di ko xool ba mu yàgg mu ni ko aminta fa nimta wóolu nga sa njub fu la neex nelawal parce que ku foo wóolu sa njub fu la neex nelawal parce que bu ñu la reyee it rey la ci njub mais nag nguur goo xam ni sécurité ba dañ ko teg entre les mains de nos frères les nobles policiers sénégalais ci seen loxo lañu ko teg ñoom ñu jàpp leen taxawaayu kudd gouvernement bi dañu considérer les policiers comme une cuillère xam nga kudd luy taxawaayam mooy lu tàng ñu ràcce ko ko bu ñu paree roof ko ca perma soxlaatuñu émission boobu loolu lañ leen def li ci gën a aay mooy Sénégal ku ñu bëgg a humilier humilier la boo ko nangoo seen koor lañu fi njëkk a humilier ràjjee leen ak importance bi nu am pour ce pays di doomu réew mi ñu humilier leen bëccëgu ndare kam humilier seen koor loolu mooy soxlaatuma la mais boo ma soxlaatul ma ne la man tam soxlaatuma la place liggéey ngay wut demal bàyyi góor nga place wu liggéey ngay wut demal ubbi cantine ci marché bi parce que ña fa nekk gënuloo leen mu mel ni kon li am mooy lenn man de dama gisul euh, dañ nu yàpp liñ yabe mooy lan mooy dafa am sax le ver du Cayor mais le ver de Ndiambour est dix fois plus dangereux que le ver du Cayor parce que parce que ce ver de Ndiambour est dix fois plus dangereux que le verre du Cayor parce qu'il suce malhonnêtement le sang des nobles citoyens et dans l'intérieur, exemple 81 le fi li njëkk dee ci nombre sénégalais ñi nga dee Gambie ay soldats sénégalais ñi nga dee Gambie ci ayam moom ba nu ca jógee lay dee Casamance ca Casamance ju njëkk ja dee na ba nu ca jógee lu kenn mësul woon xalaat sunu digganteeg Mauritanie lu dara xajul lu ñaaw ayam ca la ay wa takk diggante Sénégal ak Mauritanie ba nu fa une usine bi takk ñu ni des centaines de personnes dee nañu ci ci biir ayam la ba nu ca fait les jàmbaar de notre armée ña des ca désert ba mais ma ni kon et la série noire va continuer parce qu'il est là man maa leen ko wax parce que jéem jigul réew mi wolof yi nag dañuy wax ni boroom dëkk bu doon dëmm nu ko neex lekkay kon nag kon nag yal na nu yàlla musal ci moom ba mu bañ a naan sunu deret bu ko defee am na beneen bu gëna a mooy dugg bi muy dugg ci biir kër sëriñ si pour tàqale leen mais la mu cay liggéey lu xam nañu ko ngeen baal ma suñu frère sama xel a ko jël bi may jël parole moom laa waroon a njëkk a nuyu mu di Cheikh Al Mukhtar Kunta di doomu Cheikh Sidi Lamine Kunta bu Njaasaan mi ngi ànd ak ñun demoon na démb prison ba seeti Serigne Moustapha ñu wax leen ni dugg bi muy dugg ci biir kër sëriñ si kenn ku nekk mu jël la penq la ci sa kaw moroom sëriñ si kenn daawul dégg kenn ku ne mu dem fa ni la mën nga nekk xalifa ndax sa baay kilifa la woon solal sa mantu nga fëgg sol rien que pour semer la confusion euh, ma wax ni foofa amu fa lu muy wax sëriñ bu dem ba moom mu mën laa nax sëriñ bu dem ba moom mu mën laa nax ma wax ni sëriñ kese kese nga doo kilifa parce que il est malin mais il n'est pas intelligent ce verre de Ndiambour il est malin mais il n'est pas intelligent pour vous dire parce que Senghor a na quatre yu mais il na lu dan tax duñu ko découvrir parce que c'est un homme de culture parce que c'est un responsable Senghor bu ko defee nak mu ci kër parce que itam sëriñ si rek a atté a seen mais bu faire ni dañu am naïveté buñ ko joxe seen nos mais ñun duñu ko nangu parce que xam nañu li tax mënuñu ko wax noo ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa loolu mooy li am waaw bu ko defee yow taalibe bu jëkk ni mu ngay seeti sëriñam boo ko mënee découragé nga découragé ko te sa jabar bu demee rom ci sëriñam muurul ko sukkal ko raamal ko aumônier yépp mu jox leen impôt sénégalais yi mais loolu nuñ koy tuddee nuñ koy tuddee ah buñ la nee réew maa ngi tàkk nga ni ndax sama pale bokk na ci buñ la nee déedéet nga banku ni kon baax na buñ la nee réew maa ngi dee nga ni ndax sama jabar ak sama doom bokk nañ ci nga ni déedéet ñu ni la déedéet nga ni kon baax na waaw mais kii mbëggeelam ci Sénégalais yi fu mu jëm au contraire dafa foye Sénégalais yi foye Sénégal ci boppam ñu wax ni kon euh, sëriñ Moustapha naa Serigne Moustapha laa leen di wax ni il n'a rien demandé à Abdou Diouf Serigne Moustapha bu amé lu muy ñaan mamam Babacar si la koy ñaan Serigne Babacar si mi nek kilifa ci ëttu yalla nek kilifa ci aduna parce que xam nañu ay engagement politique gis nga bi Serigne Cheikh di jappelé Senghor ak ki mu fi bayil c'est un monstre sacré un monstre sacré mu bayil nu ko bi Serigne Cheikh di collaborer ak ñom xamna na ak Ablaye Wade nu mu toll waye du fecci kóllëre tant que fecci woo ndax Serigne Babacar Sy Ngalandu Diouf dafa ñëw di ko seet si te Ngalandu cousin Serigne Babacar la bi Ngalandu ñëwee Serigne Babacar jox ko photo mu toog ñu toog di waxtaan Ngalandu di xool Serigne Babacar ba mu yàgg mu ne ko jaaxle nga tey de Serigne Babacar ne sëgg Ngalandu ni ko danga xamul lu ma fiy wut moo tax nga jaaxle parce que xam naa ni yaa ngi jàppale Blaise Diagne te tant que ko kóllëre sa digganteeg moom doo ko fecc ma di la xamal ni xam naa ni doo bàyyi ko téye mukk tant wonu wonula mesquinerie ni ko waaye nag comme sa cousin la maa ngi lay ñaan nga continuer jàppale Blaise Diagne mais bu fi jógee rek nga xam ni bëgg na loolu mooy kóllëre mais Ablaye Wade mësul am lu mu sikke Serigne Cheikh ci digganteem ak moom dem na ba xam ne ñi mu jàppale woon jaruñu ko ñi mu jàppale woon jarunu ko dama koy wax ni ko nag ma baal àq moom Serigne Cheikh ma ni ko parce que daanaka man maa la dugal ci nga soutenir Abdou Diouf ndax keroog ba mu mujjee dem rendez-vous ak sengoor moom Serigne Cheikh ba mu ñëwee la ma ni Senghor nee na dafay dem Abdou la fiy bàyyi mu ni ma xanaa kon yéen vous les ngeen jàppale Abdou Diouf ma ni ko sëriñ ma ni ko gungenu may nu rek gungenu lu toll ci ñaari at mu ni ma ah waxuma ni ñun màggat nañu ci politique mais yéen sax màggat ngeen ci politik j'étais le plus jeune membre du parti de Senghor BDS en 51. Et j'avais 10 ans. Et depuis, événement jaaru fi ma fait la ca xew le it Je na mu pas ma comme da nga bëgg ma jàppale Abdou sa responsabilité de me ca moom nga wax ak xeex naa fekk Lamine Gueye xeex naa fekk Modibo Keïta xeex naa fekk Mamadou Dia xeex naa fekk Senghor mais bokkul ci sama jikko may xeex ak un cadet du ma xeex ak cadet xàmmee moo tax parce que boo xeexee cadet wàññi sa daraja mu ni ma jëlal say responsabilité dem ba ca moom nga wax kook moom dem naa ba ca moom ma wax kook moom ma wax ko itam ni ko mais ca jamono yooya ba mu nekkee président ca jamono yooya ma wax ak moom ni ko dafa am ñaari élément yu président Senghor disposé woon te yow disposé woo ko maa ko ko wax bu fekkee waxuma ko ko yàlla bu ma àgg sama kër ma wax ko ni ko président Senghor dafa disposé woon ñaari élément yoo disposé wul ma ni ko benn bi mooy entourage ma ni ko Senghor amoon na entourage boo xam ni ku ci génn wax ak réew mi ñu déglu la parce que fekk na mu liggéey ko digganteem ak réew mi dem ma ni ko bi ci des mooy le temps Senghor composé woon na ak temps bi ba waxuma ni dana def erreur politique mais dana def bêtise politique temps bi may ko mu dem réparer ko ba nit ñi fàtte ko ma ni ko or toi tu cours après le temps pour woon la ni xamul circonstances yi mu toll il est malin, mais il n'est pas intelligent. Il a besoin seulement de quelqu'un pour un certain temps. du composé xaritu démb muk seetlu leen ñi ko daan wër ba mu nekkee primature ak ñi koy wër il a toujours besoin d'un va nu pour rek nek ca kaw parce que ko foog ku fogul woni de ne dund ku foogul woon ni dana dund ba xëy toog ci buntu biro nga jox ko biro ni ko titre bi laa la jox bêtise boo ko defloo mu def ko waaw sénégalais yi nag sonn nañu ils sama jarbaat dafa ñëw léegi seet si ma ci bëccëg Nafi Mbay di doomu soxna umu xayri si bu di jabaru général Belal li ma ni ko Nafi dafa am lu ma jaaxal ma ne ko senegaale yi bu njëkk danga daan gis senegaale bu xàqtaay ci mbedd ba tàpp moroomam lox ma ne ko ba ma ñibbisee ba léegi gisuma ko mu ni ma mu ne ma boo ko dee wër nag gis kuy waxtoo gën a yomb sénégalais yépp a ngi wax koo ci jàkkaarloo defe ni dafa am lu ko tiital te du ko mën a wax mais lool nag li ko waral lañ ni nañ ko fi jël nañ ko fi jële ñu di leen won ni ñun sunu engagement jox nañ leen ko Ablaye Wade a ngi ci kaw semaine bu ne mu gisee ak Serigne Cheikh démb la fa mujj pour wax leen ni sëriñ Cheikh du sëriñ buy yem ci deram ak burusam xamuloo ni am na responsabilité yoo xam ni bu ca kilifa nekkee da ngay xam ni du sëriñ waaye kilifa la parce que nekk sëriñ dafa yomb bu sa mbubb guddee sa kaala rëy nga dugal sa dàll ci euh, double talon ba mu jeex nga nos nos lu tuuti rek ñu ni sëriñ nga bokkul nag ak kilifa kilifa mooy jël ay responsabilités na ko Cheikh Al Hadj Omar daan mooy jël ay responsabilités na ko Tafsir Maba daan defe kilifa mooy jël ay responsabilités na ko Sëriñ Touba daan defe kilifa mooy jël ay responsabilité am na ko seexal Al Hadj daan def waaw bu ko defee nag ngeen xam ni laajunu leen lu dul takku ak taxaw moom lañ leen di ñaan am na loo xam ni ku koy def foog nga fàtte attaaya am na loo xam ni ku koy def foog nga fàtte nelaw bëccëg am na loo xam ni ku koy def jotu caaxaan dootu leen am ñu déglu l'opposition ànd ak parce que bi vous bi ñëw dañ leen ni vous ngeen jàppale Ablaye wat ku yaakaar Cheikh mu joxe waat ndigal ni ku a na di militer dans les partis d'opposition ngeen dem militer parce que itam ay citoyen ngeen am ngeen droit dans un parti politique pour défendre ses idéaux ba tax na ci loolu lañu leen di ñaan ngeen sax ci yàlla ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam lii ñu song billahi alladi la ilaha illa huwa victoire lañ ci am loolu rek lañu leen bëggoon a wax ñi ngi les opposants en particulier maître Abdoulaye Wade ñi ngi sous ak sunu frère Landing Savané ñun la ñu boole Tejnu. tëj nu tëj ñun la ñu boole woon tëj nu ma gis nga ñoom dañu fi mu parce que bu ñu gëlëmul woon duñu boole les responsables du PDS avec les responsables de And Jëf ak ñun nous nu benn cellule parce que dañuy def réunion ba ni ñuy génne kon fa tabaarakallaahu liggéey bi nañu ko continuer ni ñu ko jële ci kàttanu yàlla dinañ ko yóbbu ba li ñu ci bëgg ñu am kon yàlla nañu ko yàlla defal ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam allahumma ahlik عبد جوب وأهل عبد جوب ودمرهم تدميرا اللهم أهلك عبد جوب وأهل عبد جوب ودمرهم تدميرا اللهم أهلك عبد جوب وأهل عبد جوب ودمرهم تدميرا السلام عليكم ورحمة الله senegaal maa ngi leen di nuyu te di leen sant itam ci seen teewaay ci takkusaanu tey bi di jiital ci nuyoo bi sama kilifa bi fi wax wax ju rafet li nga xam ni moom la wax léegi mu di Seyid Cheikh Alhaaj Malick Sy du sax teggin ci doomu daara kilifaam wax muy wax te ku nekk xam na ni li mu wax am na solo waaye nag tubaab dafa am lu mu wax dafa ni les absents ont toujours tort ma di leen xamal ni man Mouhamadoul Mansour je ne me suis jamais absent ndax ki ma bàyyi woon ak yéen moo tax ñaar nekku fi kenn moo moo tax ku foog ni li ñu fi wax walla ñu def ko fi dinaa xalaat walla ma wax wala ma def lu wuuteeg moom dof na ndax réew mi fi laa dëkk ñaareel ba itam ngeen may ma comme miinantewu ma kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk tey opposition bi ma nuyu leen jiital ci nuyoo bi maître Abdoulaye Wade takkusaanu tey tabaski la neex dagan am ci sa yàlla am ci sa bir wolof nak dafa am lu mu wax arab ba léeb na ko maa jasadaka mislu zufrika dañuy wax ni dara mënul xatan sa xatan ba mu neexe ni sa wet ndax ku nekk xam na ni xasan dafay toxu dëgg la wala du dëgg boo ko jamee nag mu daw la gën mooy fa mu ne yaa ko xam nga topp ko waaye boo ko wokk leen nit naan ko jëmal fii ak fii la nekk du foofu dangay ngay tàddeel dama waxtaan ak benn nit ci Europe mu ni ma waaw na ngeen moytu tuur deret parce que réew ma bëgguñu mu yàqu bëgguñu mu def lii te ña fa nekk yàlla moo leen fi teg ma ni ko peuple ba ku leen fa teg xanaa bu leen fi yàlla tegee itam peuple bi moom yàlla moo leen fi teg te peuple bi moo ëpp doole kon nag kuy far da ngay far ak ki ëpp doole muy le peuple sénégalais kon nag affaire bi tey du affaire u parti du affaire ou association, du affaire ou dara. C'est le sort du Sénégal qui est en jeu actuellement. Il faut que chaque Sénégalais se sente responsable et concerné. loolu rek moo ko mën a defar góor gu bax ga ci Tiwaawan daan na ko wax sànqaleen booloo war wer waaw sànqaleen booloo war wer sama Pape Malick wax na ko léegi ci xàqu kilifa yi diine yi wax ko ci xàqu opposition bi mais na ngeen fexe ba àndandoo nekk benn parce que sayu mat boo ko bëggee damm danga koy tax boo ko taxee benn par benn nga koy dammat ba mu jël mais boo ko takkee ba mu dëgër force bi ëpp doole ci àdduna bi boo ko yanoon bëgg koo lem doo ko mën a lem waaw kon nag loolu mooy li nga xam ni mooy li ci nekk nee na ñooy ñoom ñooy géej gi ñun ñooy dex gi waaye ku nekk xam na ni deemu dex moo tax ci dem yëpp waa Ndar xam nañu buñ ko gisee mu jaral leen fab seen dépense yëpp def ko ci bi ñu def nag moo di nekkatuñu ci jamono wax ci jamono jëf lañu nekk kon nag wax ak tëralin kilifa yi ñoo ko moom mais ñun xale yi ñoo moom suñu jom bopp waaw te ku ni duma tuur deret pour tabax sama réew boo nee bëgg nga sa réew waxuloo dëgg kon nag la sëriñ ba waxoon ca bu njëkk ba dinañ leen ko rappeler tey mooy la mu waxoon ni ku ne may nañ la ba fa sa fit yam waaw ku nekk nag boo yeggee fi sa yam su la neexee mën nga taxaw mais ñun daañu ko topp ànd ko kilifa yéeg borom xam-xam yi fi nekk ba Sénégal xam li nga xam ne ni moom la xamoon démb ndax réew mi benn conscience la am moo di respect des valeurs et des hommes kon nag képp ku ko bëgg a doxal te valeurs yooyu fasuloo ko yéenee respecté nit ñooñu defoon Sénégal ce qu'il était autrefois fasuloo leen yéene respecté mani ñun dootuñu nelaw dootuñu naan ndox dootuñu lekk te ñaar amul bu jëkk bi moo di Moustapha Guèye fa mu tëdd tey nag këram la waaw ndax ku dëkk ci prison ñun ci prison la ñu dëkk waaw sama soxna daf may wax ni ma da nga ndax bu ma ne ñëwal ñu dem cinéma ma ni waay yooyu affaire xaleel la waaye kaay ñu dem làmb ja ma ni loolu affaire xaleel la mu ni ma yow da nga kon nag ñun ci prison lañu ñu dëkk kon ku ñu yóbbu prison yóbbu nga nu suñu kër fële mu nekk nag ñëpp la fa nekkal ñun ñoo ko nekkal ci biti te bala noo bàyyi dafa génn ndax tegu téye biñ ko téye teguwul ci yoon waaw beneen bi ci def nag ma wax leen rek baat yu gàtt waaw sunu rendez-vous bi ëpp importance avec histoire avec l'histoire tey la histoire nag bari na ku koy firi te xamoo mooy lan histoire page la page boo xam ne nii nit du ko bind moom mooy bind boppam lu ca jara bind nag danañ ko ca bind mais lu ca jarul bind kenn du ko ca bind léeg-léeg nag histoire nettali la mbonu nit diw moo bonoon nangam la fi def nangam la fi def mais boo seetloo le plus souvent su la nettalee mbonu nit rek daf lay jàngal mbaaxu kaneen te bëgg mon nga tax nga gën a dégg mbaax loolu mooy histoire kon nag c'est notre grand rendez-vous avec l'histoire il faut que la jeunesse se mobilise

mais li ma leen bëgg a xamal mooy ñoom xam nañu ni jeexal na li ñu bëgg nag balaa ñuy dem lu fi def te ñu mën koo yóbbaale ñu yóbbu ko lu ñu mënul yóbbu ñu détruire ko balaa ñoo dem yaakaar naa ni loolu le peuple sénégalais du leen ko permettre bu fekkee dëgg la ngeen wax ma bu dul dëgg ngeen ma dul ñun nag suñu ànd li ko tax a neex mooy bu nu ànd ak yow dañ lay jàmmal parce que duñ la teg dara lu metti waaye bis bu ñu lay bàyyi dafay metti ndax lu metti rek ñu teg la ko loolu mooy sunu philosophie ci yar sunu sunu sunu adversaire su ko defee nag daañ ci dem ak tëralin dem ci ak pas-pas bu mat sëkk dem ci ak volonté bu mat sëkk kon nag euh, seen responsable moral mu di Cheikh Moustapha dëgg la fële mu tëdd neex na ndax ku sa maam di Cheikh Al te li nga ñaan mooy boo naree yéef sut ko yaakaar naa ni boo tuurul deret itam yàlla dana la teg coono bu toll noonu dara la ko dul wàññi il triomphera man maa leen ko wax te yaramam moom la mën a bloqué mais action kenn mënu ko bloqué man maa leen ko wax te loolu rek mooy li nga xam ne ni mooy li ci am solo li ci des nag mooy ñaan gi allahumma ahli عبد جور وأهل عبد جور ودمرهم تدميرا نغن كو سخو با يالا دافال لين دام ci katanu yalla balma ngi len di ñaan nak ngeen bal ma والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته asalaamaaleykum <laughs> euh, mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant may nuyu Pape Malick Sy di ko gërëm ci taxawaayam file ak wax ji mu fi wax di yobante isuma ci suma Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu gërëmal mako ci taxaway bi ma frère Landing Savané compagnon de combat di gërëm responsable syndical euh, y a bañ di gërëm responsable yi fi toog muy kilifa diine parti politique yi daanaka suma wax du parce que yaakaar naa ni meeting nous sommes peut-être des dizaines et des dizaines de milliers rassemblement yu à nii meeting bi li am solo ci li waral modi parti démocratique sénégalais dañu ko jagleel Cheikh Moustapha Sy nga jàppale na ma ci élection yi depuis lu may def rek loxo ma ngi ci daanaka li ko dal sax ci wax ji mu waxoon fii la mais nag su ngeen gisee ay leader yoo xam ne ku ci nekk mënoon nga toog sa kër loo bëgg fekk la fa ñu nekk ci naaj wi nekk ci mbedd mi di xeex ak gendarme yi di dugg kaso dafa am lu tax du pour ñun la mosu leen dégg mbug ma wax lii man ñeneen ñoo ma ko daan waxal mais dinaa ko wax tey parce que yéen yéen ñu tax di xeex Sénégal moo tax ñuy wax yaakaar naa ni sax loolu dégg ngeen ko man mënuma lu dul gërëm waa Sénégal parce que boo wootee ci jamono bii nu toll mbooloo mu toll nii wuyu la mais man amatuma dara loo xam ne lii danaa leen ko laaj yéen yéen li ngeen war a def def ngeen ko li ci des kañ ci ñun la kon nag maa ngi leen di gërëm bu baax yéen militants yi militantes yi sympathisants démocrates yéen sénégalais yépp maa ngi leen di gërëm parce que bés bu ma wootee rek dama naan ndax mbooloo moom ma amoon danaa am bu ko bu ko bu toll noonu wala bu ko ëpp te chaque fois que ñu invité ñu def organiser meeting fa tabaar fa kàlla et mbooloo mi di gën a yokk ñetti wax laa bëgg a wax fii tey te dama koy tënk bi ci jiitu moo di Sénégal yëpp mobilisé nañu di xeex plan bi nga xam ne moom la ñuy indi te li jiitu ci plan boobu moo di dagg ay solde Sénégalais wane nañu seen bëgg-bëgg parce que le 2 septembre réew mi yëpp la ñu téye dara doxul keroog Sénégal yëpp wax parti politique yi ànd

mais suñu tolérance mako fa bàyyi mais du mobilisation parce que am nañu ko du nit ñu takku am nañu ko du ay volontaire am nañu ko parce que bis bu ko songé daanel ko amul problème ni Mali def nigeria bër ci démb ko ëpp ay militaire jël pouvoir civil yi ak syndicats yi ñoo ànd def grève ay manifestation ba militaires yi obligé reculer kon Abdou problème bi mooy wax rek Mali am pour jot gouvernement ba Moussa Traoré 300 morts ñetti avons lañu sacrifié ak ak et nous, eh, ne leen nag ñun yàlla dafa nous yu bare daal danañu koy moytu ba xam problème bi

na ñëw man ma ànd ak moom depuis le palais ñu traversé Sandaga jëm Médina jëm Grand Dakar dégg nga ma dee dem dugg Pikine ak Guédiawaye ñeme wu ko ñeme wu ko voiture blindée voiture blindée 400 nga naan may président de la République doo président dara doo président dara bala nga xam nga un président da ngay ñemee dugg ci biir nit ñi mais foo jaay yaa ngi xool ndax ñu ngi lay coup d'état wala ñu ngi lay fetal nga naan yaay président président à l'intérieur de son palais derrière ses murs nous nous sommes le peuple nous sommes dans le peuple